زلفما لخيلت بخيتوسي لم يلسند عليها ولا ki démb xalifa bi Seydil Boubacar Sy woote waat liggéeyu jumaa ji nga xam ne mooy jumaa ju mag ji ci Tiwaawan jumaa historique la jumaa yoo xam ne sa maam Cheikh Seydil Hadji Malick fa la daan gàmmoo jumaa joo xam ne sa maam Cheikh Seydil Hadji Malick fa la daan jullee Sidi Aboubacar radiyallahu taala anhu ñu ko remplacé woon 22 ba 57 fa lay jullee fa lay gàmmoo am na ñu ay ka fi Cheikh Seydil Hadji Malick tëdd am na ñu jàkk fi Sidi Aboubacar tëdd waaye jumaa ji nag mooy jumaa Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu looloo tax Sëñ Babacar Sy mi xam ne mooy xalif général Tijani waxtaan ak rakkam papa Malick Sy ibnu Seydou Boubacar waxtaan ak Mamadou Sy ibnu Alhaji Abdoul Aziz ak ñoom ñëpp famille bi ñu dajaloo ne nag ñun jublu nag sunu jumaa maam Cheikh Seydi Alhaji Malick waaw. kon lu jot la. ah ma ne kon jot na dëgg-dëgg nag. dafa jot jumaa jooju nag sa maam Amadou Baye Mamadou bi ma jur booba rajo amul télévision amul. foofu la daan toog di wax Cheikh Sidi Alhaji Malick ne radiyallahu taala anhu ànd ak ya ñoom Alhaji Rawaan ñoom Alhaji Ibrahima Gaye Nayoobe ak muqaddamam yëpp ba jóge fi Sidi Boubacar radiyallahu taala toog foofu Sidi Boubacar bu daan gàmmu Alhaji Abdoy way sëñ Moustapha Sy Djamil mi taw sëñ Babacar Cheikh Diom Dioba Alhaji Mbaye Paate Ibrolo Alassane Diagne sëñ Babacar di tuj miimiya bàyyam Cheikh Seydi El Hadji Malick bu njël jotee mu ne ma bàyyi leen rek sama rakk ji rek Mamadou Mansour mi xam ne tey moo jur xalifa bi jëf Mbaye Goodbye.